saabu nu gisee sayidi muhammad el cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabiir sa gi am jeexital si ñun saabu nu gisee sayidi muhammad el kabiir sa leer gi am na jeexital ci ñun saa bu nu gisee sayidi muhammad el cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf qutbul aqtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun saa bu nu gisee sayidi muhammad el cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabir sa gi am na jeexital ci ñun cofeel gi nu am ci Cheikh Tidiane Chérif nanu ko gërëmee sunu sang bi jërëjëf imaam almahdi muntadar sa gi am na jeexital si ñun saa bu nu gisee saydi Mohamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabiir sa gi am na jeexital si ñun cofeel gi nu am ci Cheikh Tidiane Chérif nañu ko gërëmee sunu sang bi jërëjëf imaam al muntadar sa gi am na jeexital si ñun saa bu nu gisee saydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun sangi bi ne def leen yóbbal cofeel ci Cheikh Tidiane ku ko def yóbbal dal di texe ëllëg zilaalul nasra aw zilaalul fatha shahaadatul maxfuur sang bee ka wax. saabu nu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabiir sa leer gi am na jeexital ci ñun sangi bi ne def leen yóbbal cofel ci Cheikh Tidiane ku ko def yóbbal dal di texe ëllëg zilalul nasra aw zilalul fatha shahaadatul maxfuur sang bee ko wax nu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabiir saleer gi am na jeexital ci ñun sang bi li saxal ci bërëbu Medina Cheikh leeru yonen ak leeru Cheikh Tidiane li moo waral ruux yi fax wut si la sa leer gi am na jeexital si ñun saa bu nu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer la الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله الله النور لا إله إلا الله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 asalaamualeykum ñi ngi dellusi si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci jotaay bi nga xam ni moom lañu am ak yéen waaye jiital di sant yàlla moom mi nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni neena na jaam bu bëggee jëriñu ci digganteem ak boroomam nee na lenn rekk moo ko war mooy jamono ju nekk mu di ko sant cant bu ànd ak jëf moo tax yàlla bu waxee ni bu ngeen ma santee ma dolli leen c'est parce que dafa bëgg ku am reconnaissance ca lam ko defal yàlla dafa bëgg ku am reconnaissance ca lam ko defal waaw wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis waaw xam nga waxtaane bi ngay waxtaane xéewal bi la yàlla di defal amul lu muy jëriñ yàlla waaye dana wane sa benn facette te mooy yow ku mën a ku mën a ku mën a nangu ku mën a nangu lii la sa borom defal nga ndax nangu bi nga koy nangu mooy sant ba sant moo tax bu defalee keneen nit nga nangul ko waaw bu la yàlla mayee nga nangul ko bu mayee keneen nga nangul ko su ko defee yàlla noonu la bëggee doomu aadama di fonctionner rawatina ki nga xam ni wax na ni jullit nu yeesal sunu ziyaare ci sang bu tedd bi nga xam ni mooy Sayyidi Ahmad te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moom mooy sunu lépp waaw ndax yàlla nee na ko ku ma dugal aljana ëllëg yërmande gi ma def ci yow laa xool ba dugal ko aljana wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaw te aljana raxma moo fa mën a dugal jàmm ndax amul kenn koo xam ni am na mérit bu tolloog boroom bi bind la ba noppi def ci yow faculté yépp yoo xam ni yaa ngi taxaw ba bëccëg di ko jaamu te moo la ko defal ndax bu la tëraloon mën na am ni doo mën loolu su ne tegoon feebar mën na am ni doo tal loolu su ko defee nga am mérite nag jaamu ko ba noppi mu dugal la aljana kooku kenn mënu ko mérite waaw ci yërmandeem rek la lay dugalee aljana mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko nag yërmande googu ci yow la nekk ndax ci yow laa ko def pour nga ñëw indi ko ci xeet wi waaw wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin su ko defee boo ko boo ko ziyaarewul rek koo ziyaareeti dootul safe waaye moom boo ko xasee ba ziyaar koo ziyaareeti rek dañuy wax ni formalité la waaye loolu yëpp ñu delloo ko rek ci yeesal sunu tarbiya yeesal sunu teggin ndax ku amul teggin amoo dara yeesal sunu taalibe ndax ku dolleekuwul amoo dara ci sangu bi nga xam ni fees na xayb fees na shahada fees na xayb fees na shahada te boo ko xoolee it ci bët xam ni fu mu feesul amul kooku danga koy xam kooku danga koy xam kooku danga koy xam ndax médité naa ci moom ci bi ñuy wasifa xaw ma lu ma koy tudde ma ni xëy na koon xanaa mooy shérif original bi ndax ma xanaa mooy shérif original bi ndax ndax koo xam ni kawaram benn ferñeent bu nekk leeral na dëkk bi ke waxuma kanamam moom kawaram rek laa wax waaw muy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif kooku boo yesalee sa teggin ci moom sa teggin mot moo tax nu yesal sunu teggin ci moom ñaan ka nag mu nangul nu ko ndax kenn mënul mérité doon compagnon am wala doon missionnaire am wala doon taalibe waaw moom dong moo la mën a nangul moom Cheikh Tijani Chérif ñu wax ni nangul na la te su ko defee moom it dafay tànn moom it dafay tànn moo tax mag ñi daan wax ni tuddee sa bopp Tijaan taxul nga nekk ko waaw ndax Cheikh Tijani Chérif rek moo la mën a tànn ñu ni tuddee ko sa bopp taxul nga nekk ko waaw moo tax ñoom ñu moyetu woon ñoom mag ji daan rekk joxeñ diw ni moom de Tijaan la joxeñ diw ni moom de nangam la ñu wax ni ku xamul ndax Cheikh Tijaani nangul na la mën a goo naagu waaw mën a goo naagu su ko defee nag loolu loolu di loo xam ni boo amee cofeel ci moom te am yéene te am yéene pour mu defaral la sa rox ko koy ñaan waaw ndax cheikh kenn du ko forcer dara te lépp yàlla jox na ko ñu ñaan ko rek mu nangul nu su ko defee nu nuyu suñu mag yu tedd yi ñu fi fekk ñëpp nga xam ni am na ñoo xam ni sax yàlla dogal na ña nga toog ca biti ndax amuñu fu nu toog waaye yiw moo leen fi bàyyi waaw yiw moo leen fi bàyyi su ko defee yiw nag moom foo toll lu mu sore sore yàlla dina ko yóbbu ba ci yow nu ziyaare leen ziyaare ñoo ñu fi fekk ñëpp tabaarakallaahu ak mbokk yu baax yi nga xam ni ñoo dalal yi jiital ci alxalifa Cheikh Alburi Njaay mii toog nga xam ni 2016 ba léegi nii mu mel la mel waaw di nitu tarbiya tabaarakallaahu waaw su ko defee thème bi ngeen indi tey dafay thème boo xam ni facette yu bari ñi ngi ci la mission universelle face à l'épreuve de la fin des temps ma wax ni ñaari facette la benn bi mooy la ñoo tuddee la mission universelle beneen bi mooy la ñoo tuddee la fin des temps te muy axiru zaman xam nga mission universelle moom yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu ko alxuraan jàngal nañu ko moo tax buñ ne mission universelle la balaa nga ciy dugg walla nga ciy wax da ngay jéem a demander kan mooy missionnaire bi ba noppi lu am solo la buñ ne mission universelle balaa nga ciy dugg walla nga ciy wax dangay demande kan mooy missionnaire bi ba noppi boo xamee kan mooy missionnaire bi nga demande lan mooy rolam ca xayb waaw boo xamee lii rolam ca xayb nga demande lan mooy statut am ca xayb waaw soo koy xam ki ngay àndal. parce que am na koo xam ni yitteem toll na foo xam ni soo ko xamul ba noppi di ànd ak moom doo xam li lay jëriñ sa digganteeg moom doo ko xàmme te koy topp rek am na lu lay koy topp am na lu lay jëriñ sa digganteeg moom démb maa ngi koy wax benn mbokk ma ni ko fii ci réew mi rek ngay seetlu ni topp nit ba noppi nga laaj ko lu mu koy jëriñ du ko xam waaw du ko xam waaw ndax dafay wax nga jëriñu du la mën tontu ndax day jëf nga gis toppandoo ko du la mën tontu ma ni ko loolu fii nga koy gis su ko defee missionnaire bi soo ko bëggee jàng da ngay jël sa source def ko alxuraan parce que buñ ne missionnaire rek dafa am fu baat di dem nit yëkkati kàddoom ni man missionnaire la walla fu xel di dem nit yëkkati xelam ni xalaat naa ni missionnaire la waaye ban missionnaire ndax bu dee yonent yonent jeex na bu dee yonent yonent jeex na ci Sayyidina Muhammad kon ban missionnaire lu jar di laaj la ndax yàlla dafa mës a désigner yàlla dafa mës a désigner missionnaire ko wax ni kii bu leen ko sonal walla ngeen koy delloosi ci aada sama missionnaire la def na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi ñu commencé ñu bari di di ko juger di ko juger ca juddoom di ko juger ca këram di ko juger ci melokaanam yàlla ni yéen ñi koy juger li ngeen tàlla la yonent bi talul xam nga yéen seen problème problème mu aada di famille ñëw ni maa kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah waaye lam ca loolu mooy jàngal nit ban façon missionnaire moo tax ñuy wax te mooy waxaatama nabiyin waxaatama nabiyin c'est le dernier des prophètes waxaatama nabiyin c'est le dernier des prophètes kon moo tax ma wax ni ñi woote yonent ci ginnaaw yonent bi mais kooku jarul ñuy justifier parce que alxuraan moo la njëkk weddi alxuraan moo ni waxaatama nabiyin nee na yonent bi c'est le dernier des prophètes waaw ah. moom la Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani indi ca salaatoom ba nga xam ni ku nekk nga cay bëgg jot ci jamono ji mu tëleen ndax Cheikh ko moom muy salaatul fatiha ba muy wax ni allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi li ma uxliq wal qaatili li ma sabaq parce que moo tëj la jiitu woon moo tëj li woon waaye moo tëj la ko jiitu woon il fatihi ma uxliq alquran ni wa xaatama nabiyin wa kaana allahu bi kulli shay'in alim waaw te boobu yàlla dafa ni Muhammad mii ngeen di bëgg delloosi ci aada di ko delloo si ci famille mais mais vous vous trompez lourdement walakinna rasulallah moom mooy sama yonent moom yonent la kon moom missionnaire la kon moom mission moo ko ñor dugal leen ci cadre xaqiq ni leen te li ngeen xamul te li ngeen xamul mooy nubuwa ci moom la yem wa xaatama nabiyin waaw kon nubuwa ci moom la yem waaw ni nag wa kaana bi kulli shay'in alim ndax yàlla moo sàkk xakim yi kon moo leen gën a nekk xakim mooy li ngeen war a xalaat yëpp pour defar seen plan li ngeen war a xalaat yëpp pour interpréter xam naa ko man yàlla wa kaana bi kulli shay'in alim lépp lu xalaat xam naa ko kon loolu mën nañ ko tuddee mise en garde waaye fi ñuy ñëw mooy bu fekkente ni yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni moom mooy la dernier des prophètes mooy yonent bu mujj léegi kon ñiy ñëwaat wax ni ñoom missionnaire lañ kon ñoom euh, lan mooy seen statut ñu ni bu nu jëlee missionnaire bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxañ te muy imaam al xam nga ñu bari dañu defe ni imaamal mahdi rek mooy missionnaire ginnaaw yonent bi déedéet am na yeneen missionnaire yu amoon ñu leen di tuddee ay wëli yu mursal imaamal mahdi ci ñoom la bokk waaye boo gisee yonent bi joxoñ ko moom mooy fi ñu soxla ñu jubbanti àdduna moom foofu la mission tàmbalee te yonent bi du joxoñ lu dul priorité priorité rek lay wax moo tax moom bi ko yonent bi joxe ñu demandé laaj ni comme waxaatama nabiyin moom la yàlla dàqentalee yonent bi ni c'est le dernier des prophètes kon moom lan la waaw loolu muy demander laaj missionnaire bi lan la ñu ni lu missionnaire bi wali yu mursal la mooy wali yi nga xam ne dañu bokk ci xeetu wali yàlla di yabal ci jamono waaye foofu boo demee problème bi day dellu si waat xam nga lii dellu si problème bi mooy dafa am loo xam ni nit ñi faw seen xel xalaataat ko ndax yonent dafa am luñ koy ëmbe yonent dafa am luñ koy ëmbe yonent nubuwa lañ koy ëmbe ñu ni kon léegi bu dee missionnaire bi moom waliyu mursal la kon moom lan lañ ko ëmbee ndax yonent nubuwa lañ koy xame lu tubaab di tuddee la prophétie moom la ñuy xamee yonent ñu ni kon su fekkente ni missionnaire bi wali yu mursal la moom te yàlla wax na ni tëj na wàllu yonent yonent dootul amaat ci ginnaaw Seydina Muhammad waaw ndax la noo tuddee la descente du prophète Isa ibnu maria kooku du yonent bu bees waaw ku demoon lañu ñu interrompre mission mu war a wàccaat yonent bi jàngale ko pour mu àggale mission waaw ci ak imaamal mahdi ci mujjug jamono ñu wax ni kon yow mi demande missionnaire bi li ngay laaj kon mooy su fekkee léegi nubuwa waaw moom la ñuy ëmbee yonent te yàlla nee na yonent bi c'est le dernier des prophètes kon wëli yu mursal yi ñoom kon lan la ñuy doxee seen mission ndax da leen bëgg definiir waaye gis nga pour définir leen alxuraan moo lay dimbali ndax alxuraan dafa indiwaat yonent bi ci ci contexte am ci contexte moom yonent bi boobu aussi ñu ngi ko commencé waat di juger naan waaw moom bu dee yonent la lu tax euh, yàlla yabalul malaayika malaayika ñëw nekk yonent ndax ma nga asamaan lu tax yàlla euh, wàccul moom waxal boppam lu tax mu yabal ko moom di wax di wax di wax di jéem jaaxle ca na mel yàlla ni bu ñuy jaaxle na nga leen guddee xam nga li nga li nga leen di guddee pour ñu dégg la mu ñu xul innama anna basharun mislukum wax leen ni leen je suis un être humain loolu la ko yàlla wax xul innama anna basharun mislukum waaw wax leen ni leen je suis un être humain comme vous jarul ngeen di gëstu malaika nit laa comme yéen damay dem marché bu jëndi sama marchandise dugg ci sama boutique jaay sama marchandise waaye nag am na lu nu wutale yuuxa ilayya yuuxa ilayya moo ñu wutale j'ai reçu la révélation kon man dafa am prophétie boo xam ne muy nubu bu yàlla def ci man waaye su dul woon nubuwa boobu dama leen di wax ni je suis un être humain comme vous xul innama ana basharun mislukum waaw yuuxa ilayya gis nga Mouhamadul Bouchri bi muy méditer moom bi muy méditer moom ba yàlla gërëm ko ci méditation ndax yàlla dina koy def dinga nga ba dëggu yàlla gërëm la ci sa méditation te mooy ba mu feebaree feebar bu metti ba mu jël la noo tuddee tey burda mu nekk ca nekk ca di méditer ndax feebar bu dul wér kay nga méditer sa borom ba ba nga koy wuyu ji moo ci tani muy méditer di méditer pourtant bi muy méditer moom li mu doon li mu doon jéem a comprendre moom imam Busiri li mu doon jéem a comprendre mooy baat bi alxuraan wax te yàlla wax ko yonent bi te siiwal ko ba ñëpp dégg ko xul innama ana basharun mislukum moom la moom la doon médité moo tax mu bind fa mabluqul ilmi fiihi annahu basharun fa mabluqul ilmi fiihi annahu basharun waaye gis nga yuuxaa ilayya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la joxañ pour wane ni même bu dee nit comme yéen il a la révélation donc am na nubuwa bu ngeen amul moo tax bi ko yonent bi di guider ci méditation mu ni ko wa annahu xayru xalqillaahi kulli waaye ñaari baat yooyu génnul aaya bi ma wax xul innama anna basharun mislukum moom la muhammadul busayri doon médité mu bind ni fa mabluxul ilmi fiihi annahu basharun yuuxa ilayya yonent bi moo ko répondre parce que yonent bee yore prophétie te loolu mooy suprématie en tant que être humain la yàlla def ca moom suprématie bi yàlla def ci moom muy nubuwa moo tax mu ni ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim ko nag ki ngay méditer ci moom na nga xam ni moo moo gën ku yàlla bind waaw bi moo ko ko wax te daf ko ko wax nii Muhammadu bu séeri jàkkaarloog moom nii la ko ko wax Muhammadul Busiri di ko gis ah mu ni ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim waaw ah. waaye moo tax boo dellu ci missionnaire bi ci boppam ñu wax la ni kon lanoo tuddee nubuwate di prophétie ñu ni kon jeex na te wax ngeen ni am na ñeneen ñu ñoo tuddee waliyu mursal ñu ni kon ñoom kon ñoom ci ban ci ban cadre la ni delloo seen révélation ñu ni ña ngi koy delloo ca wax yu ñu ni ña koy delloo ca wax yu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo laaj yàlla bis ni ko lu tax léeg-léeg ci sama entourage mu am nit koo xam ni dana ma nettali ni nit ñi mel fu mu koy yëgee waaw fu mu koy yëgee ndax amul nubuwa yaa wax ni nubuwa ci man la yam yàlla ni ko waaw dëgg la amul nubuwa waaye am na wax yu waaw tëj nañu nubuwa mais tëjuñu wax yu te wëliyu mursal yi ci wax yu lañuy dunde waaw muy la tuddee walla duniyaati wax yu boobu nag mooy tax ñoom mooy tax ñoom bu ñu waxee la ñuy wax dafay doon xàqul yaqin waaw ndax ils sont juddee par la lumière waaw te gis nga kenn nit di jubbanti walla nit di la rëddal yoon bés man na xëy nga jàdd walla nga jum mais gis nga ki lumière du gudde fu lumière nekk rek la jëm te yàlla moo revendiqué lumière bi ko ñëpp di wut yàlla moo ni allahu nuuru samawati wal ardi waaw moo ni allahu nuuru samawati wal ardi masala nuurihi ka mishkaatin fiihaa mishbaah almishbaahu fii zujaajatin zujaaja ka annahaa kawkabun durriyyun yuuxadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyyatin wa laa xarbiya yakaadu zaytuhaa yudii'u wa law lam tamsashu naarun naarun nuurun ala nuur waaw ah. Cheikh Tijani nee na boo bëggee méditer ci lumière nee na ñetti point yooyu soo ko xamul doo dem naarun mu ni premier point nuurun deuxième point ala nuur troisième point waaw nee na soo bëggee méditer ci lumière nee na am nga trois points yoo xam ni war nga ciy jàng waaw seetal yow mi jël kaamil di jàng moom mu jox la ñetti point ñetti point ni jàng ci naaru nuurun ala nuur wax na dëgg parce que soo miinul seen xaqiqa ñoom da ngay defe nii rek nin koy firee nii interpréter ko nii rek leer ci kaw leer rek jeex na fekk ñoom seen yëg-yëg ëpp na loolu ndax ñoom dem nañu ci xay bu ba lu ñuy waxati dañuy yëg ni représentant am ci moom la ñuy joxañ pour wax ci waaw xay amul lu mu ciy tudd te amul représentant loolu amul waaw amul xay bu seen seen seen ndam ñoom mooy nga xam seen représentant wax ca seen représentant ñoom waaw gis nga benn góor nitu yàlla bu mag la yàgg naa leen wax ni benn mbokk dafa ñëw rek daan di daanu xaal rek waaw naan ko naan ko yà yàlla màgg na waaw yàlla yàlla yàlla màgg na ay yàllaay màgg di wax di góor gi ni ko yàlla di démb ba mu màggee ba léegi màqaama mësul wàcc yow bëgg nga mu màggal la mu ni ko loolu rek laay ñaan mu ni ko dangay xool ku mu yëkkati nga yëkkati kooku gis nga wax jooju wax ju am solo waaw mu ni ko soo bëggee yàlla yëkkati la xoolal ku mu yëkkati nga yëkkati kooku waaye mu ni foo bëggee mu suufeel la rek xoolal ku mu yëkkati nga di ko jéem suufeel léegi mu daaneel la ci kàmb waaw gis nga moom mi ngi koy wax waxi yàlla dafa ni daf koy delloo ca la muy zikr rek wax allahu akbar fekk moom mi ngi koy delloo ca la ñu tuddee wàllu wàllu représentation la yàlla di def mooy jël nit def ko xalifaam parce que xalifa yàlla yàllaa koy désigné yàllaa koy désigné yaa daawda inna jaalnaaka xalifatan fil ard fax faxkum bayna naas bi la yàlla nee na léegi daawda mu ni waaw mu ni def naa la sama xalifa ci kaw suuf waxal nit ñi dëgg na waaw waxal nit ñi dëgg dëgg bi mooy lan mooy xaqiiqa bi nga xam ni yàlla def na ko ci moom te muy prophétie bi mu inséré ci moom nga xam ni bu waxee nit ñi jub waaw bu waxee rox yi dëgg ko jaari ci jub moom la ko yàlla ni ko wax ko nit ñi mu doon dëkk waaye dafa fekk ni boo déggul boo déggul alxuraan dëgg boo demee ñu nettali la ko day mel na sax mbir ma pour punir daaw daa taxoon yàlla wax waaw lay wax waaw ko mu jëloon soxnaam ca taalibe léegi yàlla ni ko waxal lii dëgg su la mujj di jooy di jooy di jooy waaw su di jooy di jooy di jooy ñu ñu maanaam yow léegi mbir ma nga waroon jëriñoo jël nga ko delloo ko daaw Daawda delloo ko responsabilité ba delloo ko mission am daal di dem sa yoon te du doxe noonu lu doxe noonu parce que yàlla nee na moom organisation yi mu def ëllëg ca xayb benn bu ca nekk nee nit ki ci yaqin la koy dund xam nga la mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk boobu yonent bee ngi toog ak mbokk yi waaye ñoom ñëpp ngi xalaat aljana ñoom ñëpp ngi xalaat aljana ndax boobu dañuy xool yonent bi di leen nettali ni aljana mel aljana moo dàq li aljana moo mel ne boo fa demee nangam nangam lu rafet lu nekk rek ñu xool ñenn ñi dem bay xalaat naan waaw léegi soo demoon ba sonn ci dund boobu ndax mën nga changer beneen boo demoon ba sonn ci dund euh, vie de luxe boobu ca aljana est-ce que da nga mën a changer waat na dellu jéem a galérer tuuti pour yëg ni dundu bee neex na dellu si waat ci dund bi <laughs> ñu ciy xalaat yàlla ñëw ak inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatin firdawsu nuzula xaalidina fiha laa yabxuuna anha hiwala waaw yàlla nee gis nga doo bëgg benn changement ñu opeere ko ci dundu boobu waaw boo xasee ba dugg ca jannatil firdaws nee na dootoo bëggati benn changement ñu ñu ñu defal la gëj parce que dund bu neex la waaye yonent bi nag ni leen bu leen méditer ci ni ëllëg bu ngeen demee aljana neexeet bi mooy tax dootu leen bëggati changement méditer leen ca ñëm wax ni ñooy dugg aljana innal lazina amanu wa amilu salihat yonent bi ne méditer leen ci innal lazina amanu gaa ñi nga xam ni gëm nañu yàlla nga méditer pour xool ñooñu ñuy wax ni gëm nañu yàlla lan mooy seen jukk ndax kat nga daje ku gëmul yàlla dafay jafe nga daje ku gëmul yàlla dafay jafe ndax koo wax mun la gëm naa yàlla waaw koo romb bu mu ni la man gëm naa yàlla waaw bañ nañ ko ba da ngay dégg bu ñuy xuloo sax ñu ni dañu foog ni ñoo ma gën a gëm yàlla fekk na maa leen gën a gëm yàlla da dégg sax nga yedd nit mu ni gënoo ma gëm yàlla waaw kon maanaam ngëm bi dafa dem ba ñoom dañu ko jàpp rek eh, di ko xeexe te demewul noonu ndax inna lazina amanu bu ko yàlla wax muy gaa ñi nga xam ne ñoo ko gëm dellusi nag muy gaa ñi am imaan ba noppi mu ni wa amilu saliha di def lu baax waaw kon gëm rek doyul boo gëmee day ànd ak pratique xamoo ngëm rek doyul boo gëmee day ànd pratique bu doon loolu day yem ci inna lazina amanu foofu lay yem waaye dafa ni wa amilu salihaat gaa ñi nga xam ni dañu gëm am imaan bu bu tegu ci yaqiin ba noppi dellu di def lu baax ñu ni ko lu tax mu ni parce que wa mina naasi xam ne nit ñi moom yàlla moo leen bind man yaqulu amanna na wa bil yawmil axiri wa ma hum bi muminin nee ci biir nit ñi dañuy dox rek naan gëm nañu yàlla gëm na nañu àllaaxira mooy li ngay faral di dégg ci réew mi waaye nee na bu nu jëfee nga xam ni seen jëf wute naag la ñuy wax loolu la yàlla di éviter moo tax nag mu ni ñi ni dugal aljana di leen garanti du ñu yam rek ci wax ni am na nañu iman dañuy wax ni wa amilu saalihaat ñi ngi def lu baax waaw ca day soog indi nag euh, kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula waaw balaa ngay dugg aljana firdaws yàlla nee na da gëm ba noppi di def lu baax waaw su boobaa nag nee na dootoo bëggati nag nu changé la ca dara waaw waaye da gis réalité boobu ak noonu alxuraan di indi kàddu yonent bi di ko déggloo rox yi yonent bi dafa sonnoon ci rox yi nga xam ni ñooy taataan lumière alxuraan ñu fexe ko denc mu bañ leen rëcc yonent bi daf ci sonnoon dafa daan soññe sax wax ni alxuraan de ku ko dënnam jàpp firnde la ci ni nitu aljana te boobu yëgoon na ni ñëpp dañu bëgg nekk nitu aljana waaw mu ni ku dënnam jàpp alxuraan firnde la ci ni yow nitu aljana waaw waaye boobu la mu doon jàngale mooy jàpp boo xam ni dafa ànd jëf waaw ndax yàllaa ko feelu ni ko kii mokkal lépp te ko moom mbaam mu yanu ay téere ñooy yàllaa ko ko seddeel waaw parce que xam nga baat boobu moo mbaam mu yanu ay téere ñu bari bu ñu ko déggee rek dañuy foog ni yàlla daf ci jublu xas mbaam déedéet yàlla du xas lu mu bind dafa bëgg wax ni mbaam mi nu yar téere yam nga ay téere bu ko neexee tëdd ci taatu garab bu ko neexee tëdd ci daara bu ko neexee tëdd ci diggu tali bi waaw kon yëmu yam yëgu ko waaw loolu la bëgg wax foofu waaw moo tax nit mën na mën na wax ni jàng na alquran mën na ni sax hafizul quran la waaye doo gis benn jukko alquran ci moom waaw te mag ñi buñ daan yéemu ñoom loolu leen leen daan yéem mooy nee na ñu gis nit ni yonent bi mooy royukaayam waaye nee na bu waxee doo xàmme yonent bi su jëfee doo xàmme yonent bi soo jëflanteeg moom doo xàmme yonent bi waaw ndax nee na jëf bu muy jëf te diamétralement opposé ak ni bi meloon ba noppi nag nee na boo waxee ñu ni euh, pourtant ñun ñooy euh, maanaam yonent bi sunu sunu sunu royukaay xam nga Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa ni missionnaire ñett rek lañu koy dénk mu ni missionnaire bu nu seede mission am ñett lañu koy dénk mu ni bi ci jiitu mooy ñu ànd ak moom gëm ko yàlla dana leen terale aljana mu ni bi ci topp mooy ñu ko weddi ëllëg dinañ ko digaaleeg yàlla ca yowmal xiyam mu ni beneen bi ci topp mooy ñi sacrifier seen lépp ànd ak moom doon ay compagnon yàlla dina leen gërëm balaa ñuy génn àdduna gërëm leen àllaaxira mu ni ma ñett lañ koy dénk te boobu démb la maa ko wax dama jëm fii xalifa Umar mii moo ma jox benn kaamilu alquran démb ni ma sa compagnon yooyu ca Togo ñoo la ko jox man kaamilu alquran fu ma ko jotee damay tijji xool lan lañ ma ca wax fekk maa ngi toog ci xabru bi maa ngi ko koy wax sax ni ko seen kaamil bi rafet na ma jox ko Mawlaa ma Ahmad Tijani Chérif ni ko na ma ci jox ay conseil pour fii waaw mu tijjil ma sóoratul xaj di dem di dem di dem ba yàgg liiral ma benn aaya ni ma ko firil mu ni ma missionnaire daal bu dëggu ñett rek a ànd ak moom ñi ko gëm mission ba yàlla terale leen aljana ñawet di mission ba diggaaleeg yàlla ëllëg ñi nga xam ni sacrifié nañu seen lépp doon compagnon yàlla gërëm leen fii gërëm leen fa te boobu kaamil bi xalifa Umar dama ko indil ni waa Togo ñoo a ko jox ma daal di koy jël rek jox ko ko ndax ñu ngi toog bu ñu toogul woon it damay jàng Fatiha tijji ñun noon la ñu xamee li yàlla di wax waaw mag ñi dañ ko daan def boo leen joxee alquran kaamil bu bees dañ koy jël jàng fatiha jàng salaatul fatiha def nii tijj ñetti ay yi jëkk yi la ñuy liir lu ñu gis mu tombeel ñu ne ah yàlla man lay waxal ñoom noonu lañu daan def waaw léegi comme nit ñi xamuñu alquran defatuñu noonu nit ñi defe nañu alquran da ngay teg rek ci bibliothèque waaw da ngay teg rek ci bibliothèque tegaat beneen tegaat beneen waaw man mësuma ko def fu ma amee ñaari téere maye naa benn bi waaw loolu ñu ma jege ñëpp xam nañu fu ma amee ñaari téere maye naa benn bi ndax boo exposé kay te jàngoo ko nit di ko jàng ngay am ci yiw bi muy am ci yiw bi moo ko gën moo ko gën benn góor nitu yàlla seet si na ma daf may déglu sax dina dégg li may nettali fii mu ñëw indil ma benn téere alxuraan waaw ba mu fa ñëwee ñii la fa fekk ñoom siise ñi mu denc mu denc téere alxuraan ba ndax moom dafa am habitude bu ñëwee Medina Cheikh bu ma gisee bu ma gisul day toog wàcc kaamilam ñaan la muy ñaan jóg dem waaw mu jël alxuraan bi indi ko muy jukki yu ñu defar mu ñëw ni ma benn mag la jox wax ma turu mag mi ci réew ma ni ma moo la ko jox waaw fekk maa ngi gàddu beneen sama sama sama sama sama daal di koy kepp nii waaw beneen jukki mooy yooyu di am jukki yi ba trent ba mu ñëwee rek mu teg ma daal di teg boobu ci wet gi mu ni ma nii nii la ma ko mag jaw mag mi waxe woon mu ni ma mag mi ne woon na ma demal joxal ma ko waaye gis nga balaa nga koy jox dina ko yëg dina la jox beneen ma teg boobu jox ko beneen ni ko bii laa daan jàngi jël ko yóbbu daal di jël bi ma jox denc parce que mag ñi xam nañu fu ñu toll ci alxuraan waaw waaw moo tax mu di leen jaaxal bu ñu déggee ñu naan li ñuy wax du alxuraan ñu ni fi ñu toll ci alxuraan parce que alxuraan yamul rek ci euh, jël ko daal di liir nii daal di teg pour rafetal sa bibliothèque yàlla fi mu ko soxloo mooy ci xol ak ci ruux waaye fi mu ko soxloo surtout mooy ci jëf waaw te te yonent bi sallallahu alayhi wa naa sayyidatuna Aïcha dafa wax ni boo gisee yonent bi lu mu def yàlla gërëm ko parce que benn jukko la am ñëpp di laaj jukko ba lu mu doon xanaa mooy li muy joxe xanaa mooy li mu baax mu ni leen jukko ji mooy alxuraan ne alxuraan mooy jukkoom te wax na dëgg. loolu tax alquran xaqiqa bi ci nekk ak lumière bi ci ne loolu mooy yóbbalu missionnaire waaw loolu mooy yóbbalu missionnaire waaw xam nga wax naa leen ko léegi bi yàlla waxee yonent bi xul innama ana basharun mislukum yuha ilay dafa ni annama ilahukum ilahun wahid yàlla dafa ni révélation bi ma def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam prophétie bi ma def ci moom révélation ba lu muy rëy rëy xam nga lan la muy jàngale yàlla ba noppi di jàngale yàlla na mu nekkee kenn maanaam di jàngale baatu laa ilaha illallah loolu yonent yépp a ko bokk waaw yonent yàlla aadam alayhi salaam ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba ci Isaa ibnu Maryam ñoom ñëpp ba ñu ñëwee amul kenn ku wax baat boo xam ne dafa génn laa ilaha illallah moom rek lañ doon wax parce que moom lañ doon jàngale. mais jàngale bi ñu ko doon jàngale jàngale wuñ ko woon rek uniquement pour mu yam ci làmmiñ dañ ko doon jàngale pour rox yi pour rox yi dund ko pour rox yi dund ko loolu nu soxla moo tax mu ni fahlamu annahu laa ilaha illa la waaw nga fexe ko décorté ko fexe ko xam xam xaqiqa ba waaw yonent yëpp moom la ñu jàngale waaw wali yu mursal yi yàlla yabal it ci ginnaaw yonent bi ñoom ba ñu ñëwee baatu laa ilaha illa la ñu def muy seen symbole moo tax nun bi nu ñëwee ci axiru zaman ñu wax allahu nurullahi la ilaha illa allah loolu mooy réalité bi moo tax ñu wax allahu nurullahi la ilaha illa allah mooy réalité parce que loolu pour lan la pour jàngale xaqiqa la ilaha bi waaw la bu la tegee ci jamono la muy bëgg mooy nga xamal jamono jë ni lu ñuy dundati Cheikh Albouri nga koy wax euh, bërki démb rek yàggul alxalqu kulluhum mazahirullah lu ñuy dundati tur yàlla ma nga ci loolu indi nga gis bu ñuy wax allahu nuuru laahi laa ilaha illa nga gis ñuy def nii muy muy muy muy muy certifié allahu waaw mystique yi dañ koy xam dañuy def nii muy certifié allahu moo tax bi ma déggee benn arab ca jamono intronisation bi ba mu paasee yàggul mu de benn vidéo di jaaxle nee na ci ni may defee nii waaw ci allahu nurullahi la ilaha illallah mu def vidéo di ci jaaxle nee na benn arab naan na muy defee nii sax am na ñoo xam ne ñu ngi koy def te noonu du religion di wax ma ni gis nga bu nit bu lay bu yàlla dogalee dangay ngay muñ gis nga mission bi bi yonent bi di wax ni di nga gouverner arabe yi boobu juddoo ko waaw kon laajul ñuul wala xees laajul ñuul parce que xam naa problème bi yëpp waaw waaw xam naa problème bi yëpp ndax ñaata max di nekk ci réew mi te benn arab deful ci moom vidéo di laaj la max di boobu di def lu tax mu def ko ci ñu parce que xam na ku ñu jëm moo tax di jaaxle ma ni jarul jaaxle allahu la waaye nag nit day gëm yàlla yonent bi bi muy wax ni kii dana gouverner ji arab yi boobu man juddooguma waaw kon der bu ñuul ak der bu weex moo ci nekk waaw su ko defee loolu loolu da ngay xam ni yàlla buy def dara ci jamono yàlla buy def dara ci jamono fépp la ko yàlla di yóbbu dana ko def ci suuf si dana ko def ci jaww ji dana ko def ci ndox mi dana ko def ci ñuy dund ca seen biir kenn ko ca nekk da ko tudd indi ci sa interpretation waaye gis nga benn mag xakim la dafa ne bu ñëpp dee joxe seen xalaat ci sa doxalin nee na nee nee na bul changer mukk sa doxalin demal ñu ni lu tax mu ni parce que soo nekkul woon ci ci yoon kenn du joxe seen xalaat ci sa doxalin ni bu bu ñëpp ñëwee rek nee di joxe di joxe euh, seen xalaat ci sa doxalin nee demal ñu ni lu tax mu ni yaa ngi ci yoon boo nekkul woon ci yoon nee na kenn du am sa jot di joxe seen xalaat ci sa doxalin loolu da nga koy yëg waaw te loolu ñoom sax dañ koy yëg ñoom waaw xam nga dafa am benn journaliste bu mag boo xam ne américain la woon dafa am benn crise bu mës a am mu wax def ci bind te daan bind lu nekk bi mu waxee day bind ci crise bi rek yàggul nu toog ba ngoon rek service secret yi daal di ñëw daal di ne ko président bi moo la invité ci bureau ovale mu ni ah bureau ovale ñu ni waaw mu jug topp leen ñu dem président des États-Unis dalal ko bi mu toogee mu ni ko dafa am ku ma wax ni ma da nga fas yéene bind ci crise sàngam mu ni ko waaw mu ni dama bëggoon nga bañ si bind waaw nga bañ si bind nga may ma ba ma jéem xool nu ma ko réglé fi léegi fan su fekkee réglé wuñ ko nga bind ci ndax comme danga am influence boo ci bindee rek mën na jur lu nekk waaw te bu boobaa sax danaa la fayee leneen am leneen lu ko dégg daal di koy laaj ni lan mooy sa tontu. journaliste bi ni ko sama tontu mooy bu ma demee rek dama ciy bind parce que ma am ma am euh, tey jii honneur bu tolloog service secret yi ñëw jël si ma sama biro indi ma bureau ovale ma toog janoog yow nii su ma liggéeyul woon kon du ma ko kon man maa ngi liggéey ah ko kon man maa ngi liggéey su may dem di ko bind ndax bu ma liggéeyul woon du ma jege fii sax may toog ci bureau bi kon bu may dem di ko bind président bi xalaat ci te dëgg la wax na dëgg parce que tey su amul woon euh, pouvoir boobu wala volonté boobu ba mën a bind dara loo xam ni foog nañ ni bu bindee dana am lu mu yàq wala euh, dana am ñu mu yàqal kon kenn du ko invité ñoom loolu lañ dellu si ci missionnaire waaw loolu la ñu wax ni missionnaire bi su jógee moom benn objectif la war a am mooy fa mu teg bëtam te jëm fa waaw te ñun dafa am lu nu dénk dafa am lu nu dénk am lu nu sant xam nga Seydi Mouhamadul Bachir mi sax ku baax la mi ngi wax léegi ñu ñaanal réew mi ñu ñaan ñun réew mi ci ñaanal ko la ñu dëkk waaw waaye dafa fekk ñaan pour mu nangu faw ña ngay ñaanali tàllal seen loxo ni yàlla na nangu loolu foofu laa ci ñaan pour mu nangu ña ngay ñaanal dañuy tàllal seen loxo ni yàlla na nangu waaye ñaanal ku def nii yàlla mën na ko indi ci yow de waaye mën na ko yéexalit waaw mais ci ñaanal réew mi lañu dëkk li nu dénk nag mooy li nu sas nun li nu sas mooy deuxième facette bi ñëw ci seen thème bi te mooy aaxiru zaman li ñu indi ci aaxiru zaman la ñu tuddee noonu aaxiru zaman mujjub jamono xam nga mujjub jamono ñu bare ngi defe ni xëy na fan yii la door mujjub jamono boo demee ci xakkim yi dañ lay wax ni mi ngi door rek bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làkk ko waaw nga ni lu tax ñu ni parce que comme moo doon yonent bu mujj kon bu fi jógee rek mu jub jamono door na waaw xëy na day toll ci benn période boo xam ni dafay gën a empirer wala mu toll ci beneen période mu gën a empirer waaye ñu ni boobu la axiru zaman commencé balaa muy jeexati Isaa ibnu Maryam wàcc mooy catu axiru zaman ñun li ñu ci sas mooy dañuy wax ni axiru zaman dafa am ñetti feebar yooyu am te feebar yooyu fu mu ne monde bi yëpp constaté noonu mooy nopp yi dootuñu dégg leer bu ñuy dégg leer daf leen di gaañ bu ñuy dégg caaxaan nag daf leen di dundal te bi ma ko waxee yàgg na bu ngeen seetloo rek ci internet ñiy wax caaxaan lu ñuy déglu dem na sax ba dangay gis ku jub daawul wax sax day mujj di wax caaxaan nga laaj lan la mu ni dafa bëgg dundal chaîne-am waaw da ngay gis kuy jub ba yàgg sax dem ni xaaral daal di jël chaîne-am ko chaîne-u caaxaan ñu ne ah yow yaa ngi doon jub di wax lu jub mu ni waa parce que dama gis ni ñuy wax caaxaan rek la ñuy déglu dana dem ba toll foo xam ni caaxaan ba mooy dundal seen nopp waaye dëgg ba moom daf koy sonal waaw feebar la ci axiru zaman beneen bi it mooy xol yi seen bopp dañuy bëbb yàlla maanaam dañuy dëmmooyu yàlla xam nga dëmmooyu yàlla mooy li benn mbokk waxoon ni léeg-léeg nga wax nit mu parcourir cinq kilomètres mu daw ko léegi ci course de vitesse nga wax ko mu julli ñaari rakka mu sonn sonn ba dangay wax xanaa kay day mel ni julli ñaari rakka bi mooy gën a jafe sax nga daw nga daw cinq kilomètres waaw te da koy gis da ngay gis ku jug quatre heures du matin génn daw cinq kilomètres nga ni ko julli ñaari rakka dafay sonn sonn ba na nga naan xanaa tayu ko waaw ñu ni kooku feebar la ci axiru zaman xool yi ñooy dem ba ñoom danoo dëmmoo yu yàlla ñu ni nag kon ya ca des nga xam ni ñi ngi def va et vient tey ñu xool nan la ñuy def ba yàlla xëcc leen tey ñu xool iblis di leen jéem a récupérer ñu ni mooy rox ñu ni bu boobaa nag Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Sërif ni sas bi mooy lan mooy fexe ba dundalaat rox parce que bu rox yu jubee rek nit ki jub waaw bu rox yu jubee rek nit ki jub waaw waaye nag rox yàlla dafa dogal ni ñaar la def ñu mën a wax ak ñoom yonent ya yonent ya jeex mu ni wali mursalin waaw ñu ni ñooñu ñooñu ñoo mën a sonde rox xool fa mu toll ñu wax ak moom waaye ki nga xam ni cadre cadre am yëpp mi ngi yam ci xuli ruux min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalil te boo waxee sax mun la illa qalil du ko delloo ci tuuti xam-xam la yàlla jox ñenn ñi ci dafa naan rek ci xam-xam yàlla tuuti la ci jox kooku boo ko ne kaay sondeel ma sama rox lim lay njëkk laaj mooy fu rox di nekk loolu lay njëkk laaj parce que balaa ngay sondee dara dangay ngay xam fa mu nekk waaw loolu lay njëkk laaj fa mu nekk ngeen nekk fa fii la nekk mun a nekkul foofu ngeen di wax di wax ba mujj na seen mbir ci débat lay dellu waaye dellootul ci organisation spirituelle waaw te ñoom li ñu soxla mooy organisation spirituelle mooy fexe ba synthèse rox bi jeune bi roxam la muy mare lumière nga tàggat ko ci ba nga xam ni waxuma moom day naan lumière mais dafay dem ba mën ka nàndal keneen te loolu mooy sunu sensu mission ñun te loolu defe naa ñëpp ci seede moom ni moom rox ya moom xaw ma lu mu mënul waaye mën na ca dara waaw loolu kooku nañ ko. rox ya moom dañ naan xaw ma lu mënul waaye mën na ca dara waaw parce que boo koy déglu première fois boo moytul doo nelaw tànk jeexul waaw bu waxee boo demee jàmbaari ci diini loolu mooy rox parce que rox la mu bëgg mooy yàlla la bëgg jege yàlla la bëgg rox bëggul bëggul dellu gannaaw te itam xam nga lu tax mu am solo mooy li Cheikh Tijani Chérif wax nee na rox rek la nit ki di toll ci génn àdduna ñu jël loolu daal di koy yóbbu présenté ko borom bi gis nga. corps bi fa lañ koy bàyyi rox bi rek la ñuy yóbbu waaye mu ni gis nga crise d'interprétation des textes sacrés dana am ba nit ki dem bay foowee roxam waaw crise d'interprétation des textes sacrés Cheikh nee na dana am ba nit di dem bay foowee roxam xam nga mag ñi da ngay dégg ñu joxeñ leen yaa ngi foowee sa bakkan de mooy buñ la gisee ngay dugg ci loo warul dugg wala di def loo warul def Cheikh ni dana ko wees ñu ne ko fu mu jëm mu ni dana dem ba nit xeeb foowe bakkanam roxam lay foowe te xam nga foowe sa rox lu tax mu dangereux mooy ñi koy def ñi ci bari ci ëttu diina lañ koy def mooy interpréter xaqiiqa boo déggul interpréter xaqiiqa boo déggul loolu mooy foowe sa rox interpréter xaqiiqa boo déggul loolu mooy foowe sa rox loolu mooy fooyee sa ruux te dangay dégg nit wax ko ci jotaayu diine nit wax ko ci jotaayu diine mës naa toog nii waxoon naa ko waa xadara bi fekkee nañ ko maa ngi maa ngi zikr nii di toog nii yore sama benn vidéo bu ñu ma envoyé ni naa ko xool ma di ko xool mbokk mi di wax ci tarixa tijaaniya nee na fa ko jële fa mu dem nangam nangam ba naan bëgg jibril joxe yonent bi cheikh feeñ ni ma corrigeel ma kii teg ci wax joo xam ni duma ko wax fii ni ma corrigeel ma ko teg ci wax joo xam ni wax naa ko ñii waaye duma ko wax ndax sama yar mayu ma ma wax ko fii waaw ma ni ko nu ma koy corrigé mu ni mu ni jëlal ma taaxaa nga nga nga nga toj taaxaa ca laa def waxtaan ba ca taaxaa ñu dugal ko ca internet gis nga Jibril nekku fii pour di yore ay tarixa di ko joxe jibril xam nga li mu fi nekkee mooy porte parole boo xam ni yàlla daf naan ko waxal ma nangam yonent bi mu wax ko am na relation boo xam ni yonent bi seq na ak borom concerné wul sax jibril alayhi salaam waaye gis nga di nga dégg di xaqiqa ba defe ni boo tuddul jibril sax nit ñi dañuy dunu gëm li nga wax foog nga ni jibril joxe ñu soog a ne ah jibril jóg joxe ñu ni waaw te koo ci nit ñi jibril melkat mu naan ah gën a am na nangami laaf de gën a yor na nangami lu te boo amee fit ba ni Jibril joxe war nga wax ni Jibril mel ci ni ni Jibril mel du la ko wax am na loo xam ni du du maanaam nga dugal ci Jibril da nga baax rek mais Jibril tàllu ko Jibril tàllul tariqa Jibril li mu tal mooy la mu doon dox dox na ko wax ak li ko yàlla sant ni ko waxal mu wax yonent bi seq na yàlla relation yoo xam ni concerné wul Jibril Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani yàlla yàllaa ko jël ci lumière ga woo sayidi ahmad sallallahu alayhi wa sallam mu ñu yàlla ni ko jàbb lumière ba mu ni ko jabbu Cheikh Tijani Cheikh moo tax cheikh ni ma jëlal taaha corrigé ma kii ma jël taaha corrigé ko waaw waaye ku foowee sa rox am na loo dul dégg waaw waaw ku am na loo dul dégg Cheikh Tijani moo tax mag ñi daan wax ku la ni cheikh ren ni la cheikh déwén ni la waat cheikh déwén nee na cheikh ko wax ndax loo tudd loo ñumtoo sax dégg na ko waaw te moom du du du wëli yooyu di dégg ba noppi naan muñ ba ëllëg day réagir waaw moom du wëli yooyu di dégg di dégg rek naan nañ muñ ba ëllëg de day réagir waaw wata ma mës a dégg rek benn mbokk ndeysaan xam naa xolam ak a tooñ nag mu naan waaw loolu el cheikh di wax sax pourtant am na ñu ko xàmmee dañu noppi waaw te mënoon noon ko wax ma ni ko wax demal seeti ñu ko xam ñu wax ko bu Cheikh rëkkul seen ndigg ñaari fan ma xam ni kon xanaa li may wax amul xam nañ ko dañ ko wax naan am na ñu ko xam sax waaye gis nga doon noppi moom nag mi ngi ko xam di wax ma ni waaw de demal toppandoo demal wax dafa am lu Cheikh Tijani di autorisé ak la mu dul autorisé gis nga dafa am benn mag bu ñu ko waxoon réew mi yëpp xam ko daan na toog ba yàgg te nitu yàlla kaamil la benn góor nee na ma day toog ba yàgg mu ni cëy yàlla nu ni ko lan la mu ni xam lu bare te munoo ca wax mu ni ko lu tax munoo ca wax dara mu ni ah ku nekk ak sa mission la ko daan waxe waaw ku nekk ak sa mission waaw te Cheikh Tijani moom moo protéger secret tariqa moo tax ku ko fi ni secret tay secret suba déglu ko ndax secret gannaaw suba mu ni ñu ko xam bari nañ àcc nañ ko wër di wax comme ni ma koy wax léegi ñu xam ku ñu wax loo ak ku ñu loo pour wax la ni am na loo xam ni moom soxol xol rek a lay tooñ waaye sa xol bu la tooñee da ngay salaatul fatih pour yàlla defar ko waaw pour yàlla defar ko ndax lumière ñépp xëj nañ ci waaw lumière ñëpp xëj nañ ci te gis nga li Seydi Mouhamadul Bachir mii di wax am na ñu bare sax ñu ngi wax ah doy toog rek di daana ko di ko jaay di wax <laughs> moom li muy wax xam na ko de jaay amu ci waaw ñi ñëpp xam nañ ni bu doon ay taalibee rek ma yitteel du fii laay toog damay dem fële ca bitim réew toog gis nañu ba ma fa toogee ñaari fan lu nit ñi di mel waaw te ñooñu dañuy gëm ak volonté sans arrière pensée sans aada waaw kon fa lay toog rek di leen dajale di leen dajale ba ñu mot ay avion yu avion ma indi leen waaw waaye gis nga mag ñi nee nañu ki la jox ndékki jox la añ yi la sa ëllëg danga nga reer boo ko gëmul weddi yàlla Cheikh Tijani Chérif moo ni ma gis nga sa mission déglu ma lu ma la ci ni defal defal lu ma la ci bul def bul def waaw kenn mënu la tee ba la nga war a diriger ji ëllëg doo ko diriger kooku kenn mënu ko waaw te man Cheikh laa gëm waaw man Cheikh Tijani Chérif laa gëm waaw waaw moo tax sonn ma ci dara waaw sonn ma ci dara waaw la ma war a def rek laay def. amul lu may accéléré rek lu may yóbbu feneen fu ma ko warul woon yóbba lu may jommalee nit ndax mu jaaxle waaw ba mu yëgee ni sax dama bëgg jommali nit boobu la ni ma jaru ko nag parce que man ñi ma yitteel mooy ñu gëm rek man man ku gëmul yitteelu te wax na dëgg <laughs> cheikh lu mu yëg la boo ko boo boo ko doy boo ko doy laa wax de waaw boo ko doy lowee dootoo dootoo dootoo jaarete ci yoon boo xam ni sax dañuy wax ni sa bakkan nga dem ndax lépp yitteem la te ñun lii xew ci xadara bi ak organisation yi fi ne yëpp loolu loolu c'est encourageant ndax da ngay gis nit ñoo xam ni seen yitte yëpp mooy fexe ba seen digganteeg yàlla seen digganteeg yonent bi seen digganteeg Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif defaru te liñ koy jaaree mooy ci salaatul fatiha te daf leen di jaaral loo xam ni sax ëpp na seen dund ñoom ëpp na seen dund ñoom seen seen seen xale bi yore seen organisation yi rek fan yi maa koy wax Medina Cheikh muy Cheikh Mouhamed Sall ku jar a tàccu la waaw xaw ma ñëpp xam nañ ko wala am na ñu ko xamul ci émission bi ma doon seetaan te mu def ko waaw waaw waxte nëbbul dara waaw waaw wax buntu buntu ya mu naroon dugg yëpp ak nam ca génn waaw te tey ñu bari buntu yooyu diigal leen kooku kooku ku amul ku amul yaqin kooku ku amul yaqin noo ko wax waaw kooku ku amul yaqin mënoo ko wax waaye ku ku seetagul nu ko wax ndax ku set ba noppi mooy toog naan ay fa ma jaar waaye ku setagul kay bu ne fa ma jaar te mi ngi ci ba léegi du ko wax daf koy nëbb waaw loolu pour man ci jamono ji jeune mën a seede seede yu mel noonu ba noppi gëm la mu gëm loolu loolu jar na lu ne waaw jar na lu ne ndax mission bi wax wax naa ko wax naa leen ko bi ma bi ma leen di wax dana nu ñëw ci waawan pël waaye nanu fexe ba jeunesse bi ñu xam ni nanu nanu nanu nanu yëngal dëkk ba tey defe naa waxuma dëkk boo xam ni sax yëngu na waaye dëkk ba dafa mujj di boy ak lumière <laughs> ndax fu nekk allahu nurullahi la ilaha illallah mu maa mujj sax di leen calmer waaw man mi leen waxoon yëngal leen maa mujj di leen calmer <laughs> te loolu ndam la xam yonent bi bis wax naa leen bis ba mu amee tristesse yàlla loolu la dalalee xolam yàlla dafa ni ko gis nga ñi nga àndal say compagnon boo xamoon ni lu la gëme ak li nga leen jaral ñoom Abu Lahab ak seen wax yee sax doo ko yëg yonent bi nag xam ne am na ay qualité waaw te ñoom seen seen seen xaqiqa yëpp mooy lumière waaw te te te ñooy te te ñooy nag baromètre mission bi waaw ñooy baromètre mission bi ndax mission bu jëm deux mille soixante quinze kay loo gàtt-gàtt xalaat war nga xam ni foog jeunes yi foog jeunes yi ànd ci pour dem pour dem ba année yooyu su dul loolu mag sax mën na dem ba année yooyu waaye xanaa dañ koy yëkkateeg di ko tër ah, ndax loolu dafa sore ndax ndax ndax loolu ndax loolu dañ naan dañ naan euh, dafa sore waaw jeune nag moo ci mën a nekk waaw moo ci mën a nekk ndeysaan ànd ci di dox ànd ci di dox di relever ay défi di relever ay défi ba ca victoire éclatante te wax naa leen tànk laluñu ca Kaaba ga malaan tànk ñu ca masjidi rasul malaan tànk ñu ca masjidil Aqsa malaan man jàppaguma ni victoire éclatante am na ndax man victoire éclatante mooy fu ñu ko dul lal rek ñu lal ko fa man loolu la tuddee victoire éclatante. te ci te sama liggéey lépp ci loolu la jëm waaw sama liggéey yépp ci loolu la jëm waaw yi may teg benn par benn ci loolu rek laa jëm jëw ma ci leneen ndax ñu bari sax xëy na mën nañu xool ne ah loolu liggéey bu metti bi ma ni waaw parce que loolu su amee fépp leer na fi ñu gëmul Cheikh kay ma malaan boo ko fa lalee kooku kooku defar nga leen waaw parce que il faut ñu xamal nit ñi ni source bi source bi pour jëriñu ci axiru zaman lumière salaatul fàtte la te lumière u salaatul fatiha génn na aada xaqiqal xaqiqal xaqiqatu muhammadi xaqiqatu ahmadi génn na aada waaw daree aada nekku ci waaw dafa fekk nag aada mooy tax nit tàyyal waaw xam nga aada mooy tax nit ñëw fii noo man fee laa bokk moo tax yow waroo laal li yow fii nga bokk nangam nangam di ko seddale di ko seddale di ko seddale mu defe ni diine ji gàttu bu ni séddoo la te diine ji du gàttu bu ni séddoo inna diina inda allahi l waaw diine ji yàlla moo ko moom waxoon naa ko ca Thiès ma ni képp ku ni noo diw rek a war a wax ci diina diw warul wax ci diina laaj ko lu yonent bi sant laaj ko lu yonent bi sant ndax loo yaay yaay ci diina yonent bee la gën a yaay ci diina waaw ku ni tarixa bi diw rek ci war a wax diw war ci wax laaj ko lu Cheikh Tidiane Chérif sant ndax Cheikh loo yaay yaay ci tarixa am moo la gën a yaay ci tarixa te ñoom ñaar ñëpp amul ku ci gëm sant waaw ñoom ñoom sant aada lañ ko jàppe ñoom xaqiqa rek la ñu gëm ñoom gëmuñu deret gëmuñu sant xam nga gëm xaqiqa waaw yàlla nee na maa kaana muhammad aba ahadin min rijalikum waaw walakina rasulallah kon kay jeex na waaw Cheikh bi mu ñëwee moom moom moom ci tànk yooyu la jaar moom ci tànk yooyu la jaar waaw moo tax mu jël Mouhamadul Habib di Seydi Ahmed Cherif wax ko ni ko jógeel fees te nga dellu ci ay numaadi bu ngeen ma dencee dellu mu ni ko lu tax mu ni ko parce que boo fi toogee nu fal la fi imam fal la fi xalifa te man sama xalifa yonent bee koy tànn présenté ma ko ma accordé ñu ni sama xalifa la kon xëccoo bi la Cheikh Tidiane ko wax téere yëpp bind ko ñëpp xam ko ci réew mi kon coow jaru ko di Cheikh ko wax ñëpp ñëpp ñëpp xam ko waxuma xaqiiqa de wala bi ndax bu ma waxee nu ne ci bu lay wax déedéet ci téere yi lay wax ñëpp xam lii may wax Cheikh Tidiane jël doomam ni ko bu ngeen ma dencee dellul ca ay numaadi bu fi toog mu ni lu tax mu ni ko parce que boo fi toogee nu fal la fi xalifa fal la fi imam te man sama xalifa yonent bi moo koy tànn yonent bi moo koy tànn mu dellu ca Aynu Madi nettali naa leen ko ca gàmmu gëni moo tax bu ñu ko assassiné nit ñi naan xool waroon ko protéger fii assassiné nañ ko fee yu kenn xam di dugg ci détail yoo xam ni cheikh du ci dugg waaw cheikh du ci dugg waaw te loolu ñëpp a ko xam kon kay xuloo amul waaw te itam euh, gis nga mission bu ngeen taxawoon ba suba bu ngeen taxawoon ba suba di ma tàccu di ma way di ma tagg naan yaay imaamal mahdi yaay ki ñu doon xaar nangam nangam te fekk kenn xaaruma du sotti waaw xam nga lu tax ngeen koy wax muy dundal seen rox c'est parce que man lan doon xaar c'est ñun amuñu amuñu ñu ñuy jeeg ndax am rek lañ ko foog dégg rek yi di tàccu di di wax moom lan doon xaar ma ni waaw da ngeen leen laaj ba noppi ñoom kay ki doon xaar ci seen rox ba mu ñëwee la seen rox defaru kon kay xam nañ ko ñoom xàmme nañ boo jaaree ci seen tànk nag xam ñoom la ñu xam waaw waaw itam sax nag wax dëgg yàlla nitu yàlla ci jamono ju metti ji axiru zaman bu lëndëm bii kay yow kay buñ ne yow la ndoor xaar sax yow sa charge kenn attanatu ko ndax li nga war a relever ci défi kenn xamul na mu toll xoolunu àdduna bi mel waaw xoolunu àdduna bi jaxasoo doore ko sunu réew rek kenn xamatul lan la fu mu ne même jeunes yi doon déglu ay waaraate gedd nañu waaraate te dañu am raison nag de man waxtaan nag naaj ce ñaar ñoo xam ne xam naa leen ay nitu àdduna la mais lin ma wax mënuma leen yedd ba ma leen gisee ñu yor seen cigarette di tox di wax mën leen waaw yéen yéen du ñun ñoo bokkoon alxuraan ñu ni ma waaw ñaari seex lañ mën leen ñun ñoo bokkoon alxuraan yéen a ngi fàttaliku bi bi ma tolloo ci wadduha te boobu wadduha jàng naa ko seen kanam jàng wëlay li seen kanam su ma daawul mokkal sëriñ bi daan na ma wax ni wax leen nu saar la nu di ma saar di ma saar ba yàgg rek mu mujj jommi ci man waaw ma romb leen ak seen cigarette mën leen yéen lu ngeen déglu waaraate pour ñu ni yoo xam ne yow ñiy waaraate yaa leen sax waaw ma dem ba bëgg leen yedd ma xalaat ni ah wax nañ dëgg ma noppi waaw dëgg nii lañ ma ko waxee ni ma waaraate yoo xam ne yow ñi lay waar yaa leen tane yow ñiy dégâts yi nii def yow yow sax ruus nga ko def mais dañu am raison parce que bis bu nekk ka la doon waar da la doon waar dugg ci dégâts boo xam ni yow kay sax dootoo dootoo ko déglu balaa ngay mel ni ma waaw yaa ayyuhal lazina amanu li ma taquluuna maa laa tafaaluun loolu la yàlla wax yàlla nee na yéen gëm lu tax ngeen digle sangu te yéen sanguwu leen lu tax ngeen di digle loo xam ne def leen te yéen du ngeen def jamono ji nag loolu moo bare waaw jamono ji loolu moo bare te gis nga loolu ñuy véhiculer message yooyu mooy décourager les jeunes yu bare ndax dangay yaakaar ci nit kersa yaakaar ci nit teggin yaakaar ci nit lu nekk xëy suba rek bàyyi ko waaw dégg ko ci lu kenn xamul muy wax lu ko wóorul di dugg ci lu yoonam nekk di wax di wax lu kenn xam waaw su ko defee ka ko doon déglu ni xaaral sax ma bañ mel ni kii man daal di jublu ci leneen waaw lu mel noonu la te loolu léegi su amee su demee ba jeunesse bi amee esprit boobu ñoom ñëpp gedd waaraatee ku ñuy dégloot loolu muy danger bi moo tax mag ma waxoon ko te dëgg la mu ni ñaata rajo ñooy xëy di waaraate télévision boo taal nangam nangam waaw léegi nañu laaj lu tax jukko yi di gën a yàqu waaw ma ni ñi ni dégg ñi ni dégg ñi ni dégg ñoo bareetul waaw gis nga compagnon dëgg balaa muy mën a jóg fa mu naw la xam moo ni nit bu la nawul du la toppandoo waaw waaw gis nga nit bu la nawul du la toppandoo te gis nga borom jamono rek nag la ñuy naw borom jamono mbaxane bu mu ñaw ñëpp daanu ñaw mbaxane boobu solu bu mu solu ñëpp daanu solu solu boobu dox bu muy dox ñëpp daanu doxe ni moom waaw te koo laaj ni ko yow li ngay doxe pour lan la mbaxane bi nga ñëw pour lan la du xam pour lan la yow lan pour nduroog moom rek seetal nduroog ni tax nga ñëw mbaxane bu mu ñëw sol la mu sol di doxe na muy doxe loolu la yàlla di may boroom jamono waaw ndax xam naw bi ñu koy naw moo tax nga moo tax nga koy déglu waaw koo nawul mu doo ko déglu ji da ngay bëgg mel ni moom da ngay bëgg nurook moom te mën nga ko dàq sax nag mën nga ko dàq sol mën nga gën a mel neen waaye kenn du xam lu lay motiver ci moom kenn du ko xam te li lay motiver ci moom buñ ko gëstoo ba ci biir lumière xol lay doon waaw waaw cofeel boo xam ni ci xol lay jóge te cofeel ba moo lay ëpp doole yow mën na la daaneel nit ñi di laaj wéerul wéerul fekk na cofeel kese la waaw ndax leeru cofeel lu ne mën na fa yóbbu nit wax naa leen ko 2002 ni benn xut bu zamaan moo ma ko nettali ñu toog mu ni xam nga fi ma àgg ni fekk boobu ñu nga toog ca Bagdad mu ni ko fi nga àgg ñëpp xam nañ ko mu ni ma leeru cofeel moom ma fi yóbbu waaw ca laa defe waxtaan jàngal leen ndekke ni leeru cofeel solo bu mu am waaw te Cheikh El Hadj Malick nee na amatana allahu ala diina nabi wa huwa bi cheikhina imaami tayibi waaw kon nga xam ni cofeel rëy na ci ñoom waaw parce que am na loo xam ni boo boo ko soppul doo dem. am na loo xam ni boo ko soppul doo dem waaw te loolu la ñu tuddee leeru cofeel moo tax mën na yóbbu nit fu nekk waaw mën na yóbbu nit fu nekk te itam nit nag balaa mu lay mën a topp mu naw la nag waaw balaa mu lay mën a topp mu naw la parce que bu la nawee rek jeex na waaw bu la nawee rek jeex na te loolu nag te loolu yàlla moo koy def ci nit looloo tax gis nga mission suñu ko bëggoon résumé dañuy wax ni objectifu missionnaire bi moo war a nekk objectifu compagnon missionnaire bi waaw ñoom ñaar ñoo bokk objectif gis nga bis bu compagnon bi foogee ni bokkuñu objectif rek euh, bokkugul ci mission bi waaw xam nga Ababacar li doon objectif mooy objectifu yonent bi xam nga Umar li doon objectif mooy objectifu yonent bi Ousmane noonu Ali noonu ñeneen ñi ñëw seen gannaaw noonu kenn ku ca nekk loo ko wax mu ni la Muhammad wax ni moom la ko yàlla sant ñun ci tànk yooyu la ñu taxaw pour bu ñu yàlla woowul wax ni maa leen ko sant it ñuy bay tool bi Muhammad di bay loolu moo war a nekk objectifu missionnaire waaye nekk objectifu compagnon missionnaire waaw mooy fa mu jëm la mu cay liggéey yow loolu nga war a liggéey la nga cay liggéey yépp ci mission bi nag defaloo ko missionnaire bi sa bopp nga koy defal yàlla bi ñëpp di commencé di bay ci tool beeg naan jihaad beeg naa ay jihaad bee metti di wax yàlla ne ah attention bi seen jihaad yi kat seen bopp ngeen ko defal <laughs> ndax man su ma neexoon jubal ñëpp su ma neex yi dëngal ñëpp su ma neexee jubal ñi dëngal ñi lépp sama principe la kon li ngay liggéey li ngay liggéey mooy li ngay li ngay bay yow ci toolu islam waaw waaw parce que missionnaire moom buñ ko xasee ba rëddal mission bu dee missionnaire bu nu seedee dëggam la kooku amul luy entravé mission waaw dara du entravé mission ndax missionnaire wàllam wàllam wàllam la ci ëpp solo mooy nee nañu ay qualité rek lay lay def ci wetam benn magu ko daan wax mu ni nitu yàlla bu door ku ne dana ko wuy si mu ni bu toogee tuuti nag nee na si lay seppi si lay tànn waaw ñu ni bu tànnee ñuy des mu ni qualité yi ñi nga xam ni yëg ni mën na cheminer ak ñoom xam nga ni kuy seppi kay kooku kooku jëlul rek di root di dajale te loolu te loolu te loolu te loolu mooy mooy mooy dëgg-dëgg ndamu missionnaire waaw mooy mu fexe ba ñu muy àndal mu tànn leen kenn par kenn waaw te ñun noonu la ñuy def ñun condition yi am fii yëpp ñëpp xam nañ ni condition yooyu ku doon ku ñëw rek nga dajale condition yooyu du la ci fekk waaw waaye ñëpp xam nañu ni fii lumière moo fiy dox waaw xam nañu ni fii xaqiqa moo fiy dox nun nu aada yàgg naa ko di wax waaw nun gëmunu aada xaqiqa la nu gëm waaw te li may def yéen moom ngeen di def li may jaamu yàlla moom ngeen di jaamu yàlla waaw xalifa Ousseynou Ndiaye mi mës naa dégg mu wax ko ci mbokk moom doon jox wér di wax bu am solo la waxu ko ni ko melal ba bu ma la mën man jeex xam nga loolu kay di jox wér di nit waxoo ko melal nii xanaa ni ko fexeel ba bu ma la mën ci malaan bi rek ah kooku kay kooku kay fa la fa la fa la lay yem fexeel ba bu ma la mën ci malaan kon kon kon moom xam na ni moom munoo munoo jéem ba mën ko waaw loolu loolu nag bu la cay roy jeex na te loolu mooy li am solo te loolu mooy li nga xam ni actuellement diine islam soxla na ko parce que diine islam li mu soxla jamono jii nu toll mooy ñu orienté leen ñu xam ñu xam fa ñuy jëmale seen bopp waaw islam bi moom la soxla ndax islam bi foo dem rek am na lu fa yàqu waaw axiru zaman la nag mënul ñàkk waaye foo dem am na lu fa yàq mais yàqu-yàqu yi lu tax mu jafe mooy ña nga xam ni dañu foogoon ni ñooy defar la ca ëpp ñoo ko yàq te mooy division yi am ci islam division yi am ci islaam kenn xamul ñaata mouvement ñoo ñoo ñoo ñoo wu diviser lu kenn xamul. ñu siit yi dañ ci gën a siiw rek ak sunnit yi waaye fekk na division bi yàgg na fi waaw ku nekk rek bokk maag ñii ku nekk rek woote wu ma nii ku nekk rek maa nga ca moo tax léeg-léeg waxoon naa ko Cheikh Aly Niang mi yore wala duniyaati ma ni ko documentaire yi ngeen di def heureusement sax dañ ma koy jox ma valider ko ma ni ko di leen ci def très attention ndax gis nga bari na hadis yu ngeen tudd ne hadis la fekk na hadis boobu demewul noonu wala interprétation bi demewul noonu ma ni leen surtout ci kaawu Imaamul Mahdi boo déggee li chiite yi wax ak li sunnite yi wax dafay mel ni yàlla ak yaana lañ ko tuddee xaw ma yaan bokkul waaw bokkul ku ci ne ku ci ne dafa am gis-gis waaw ma ni leen bu ngeen ko jaxasee rek juum waaw bokkuñu waaw nu ni ban la yonent bi wax ma ne ah nunoo tuddee sunnite de li ñu wax de moo gën a jege lu yonent bi wax waaw ndax yonent bi moom mësul wax ku nekk ci benn kàmb rek nu di ko xaar loolu yonent bi mësu ko wax waaw te xamuñu kañ lay génn na nag ni koy interpréter parfois ca la ñuy ca la ñuy juumee waaw waaye gis nga dañ ko diviser moom it ba kenn xamul lan la boo demee siit yi am nañu seen imaamul mahdi sunnit yi am nañ ko da ngay dégg sax ñu ni imaamul mahdi sufi yi waaw sufi ñu am nañu siit yi nee nañu am nañu sunnit yi nee nañu am nañu te benn am kat waaw benn moo am benn benn bi Cheikh taxaw wax lu kenn ñemewul wax ni bu ñëwee sama taalibe lañ ko ñu ni non ni moo koy waxal bopp xam nga boobu boo bokkee ci tarixa tijaan yi pour man booy débat sax yow kon da ngay bëgg weddi cheikh yow loolu la tarixa tijaan yi charte yi dañ ne lu cheikh tijaan yi wax danga nga ko war a gëm ci xaqul yaqin waaw cheikh wax loolu léeg-léeg nga dégg nga laaj nit mu naan waaw Imam Mahdi de mën na mën na doon tijaan de ah, waaye naan yàlla xam yàlla te moom kat nee na tijaan naan mën na doon tijaan moom loolu moom kenn defi ko ay yàlla ni yàlla kay moo xam ndax ñi xam ñëpp moo leen xamal moo xamal Cheikh Tijani ci yàqin ni ko kii sa gannaaw lay topp Cheikh ni sama gannaaw lay topp parce que bu ma toppul fu mu jaar jëm ci tëj xay bu tëj shahada boo àndul ak moom foo jël te Cheikh Tijani tëj xay bu tëj shahada waaw ci xat mi ak xat mi waaw looloo tax ma ni euh, problème yooyu ñi ci sonn ñëpp mooy ñiy nekk di prouver gis nga mission kenn du sonn moom la nga naan du moom da ngay gis sax ku ci bëgg xeex non non gisee ma ni moom lu ma ni déedéet gis nga mission bu doori bi mooy doxal boppam di ko prouver di ko prouver ba adduna bi yëpp àndandoo ni yi muy teg yëpp loolu la waaye bu dee borom mission bi naka Cheikh Bassir waxee day tëdd rek climatiseur yi tiim soo nekk nag taalibe yi di xuloo di poñante naan moom la naan naan te génnul néeg bu yàggee ñu dénk mission bi taalibe yi di bàyyi la fa waaw ndax yàlla bu la defee missionnaire la muy bëgg mooy nga am pas-pas bi yonent bi amul te yonent bi ñëpp xam nañu ni homme de terrain la waaw yonent bi homme de terrain la waaw mu ngi ci naaj bi mi ngi ci biti mi ngi organisé mi ngi naan jaar leen nii mi ngi naan def leen ni te nekkul recteur di ca xayma ba daan ay ci lu ngeen def baax na waaw te mënoon na ko ci bañ fekk ndax mooy le meilleur des êtres créés loolu loolu muy missionnaire mooy yow da ngay fexe ba nekk sur le terrain waaye soñ soññi ñi ànd ak yow ñu ànd ak yow ci dëgg ànd ak yow ci xàqul yaqin la ca des na kenn ku yàlla nar sedd yàlla moo lay séddal bopp yàlla mooy gudde bu ko neexee mu dëngal la waaye bu la bëggee gudde moo lay wan ci yaqin nga xam waaw mag ñi nag neen ñu yàlla ñoom ci seen wax loolu lañ daan wax dañ naan nag yàlla benn yoon la mën a wane du wane ñaar mag ñi ñoo ko daan wax <laughs> ñu ni ñu bari duñ dégg loolu ñoom danaan wax yàlla benn yoon lay wane di wane ñaar ñu laaj leen luy loolu ñu ni mooy yàlla su la xasee ba gudde nag daf lay bàyyi ak sa volonté nag nga des ci siraatal mustaqim waaw mais nag du du la gidde nga dem ba yàgg bàyyi duggaat ci ay lëndëm mu toppaat fa nag di la gidde déedéet loolu ma doon seen wax waaw nee na yàlla mën na teg si yoon ba noppi te sa mbagg nag ni la yoon baa ngi nii waaye nag dalay bàyyi sa volonté àggaleel la yoon mooy boo tegoo ci yoonu njub da ngay góorlu ni ko mag ñi daan wax waaw da ngay góorlu fexe ba jomb jomb li nga xam ni jubul waaw fexe ba ni jub rek laa jomb te jub rek boo ko jombee Cheikh Tijani joxe na remède bi nee na bu la naree jaaxal boo amee temps defoo dara jëlal salaatul fatiha salaatul fatiha lumière am dana la guider te nee na bu la lumière am guider rek nga xam fi ngay teg sa tànk waaw bu la lumière nga xam fi ngay teg sa tànk kon nga gis ni li ñu wax yépp ci mission universelle li ñu wax yépp ci aaxiru zaman buñ ko delloosee ci benn wax bu simple mooy mission ku yàlla dee moo ko mën yor missionnaire ku yàlla jàppale moo ko mën doon su la yàlla deewee jàppale la nag nga doon missionnaire même qualité yooyu mooy tax nga doon compagnon mooy yàlla jàppale la mag ñi ñoo ko daan wax ni ku ku ku mën nekku fi ku yàlla jàppale rek moo fi nekk bu la yàlla jàppale nga doon compagnon boo doonee compagnon nag xam lan mooy sa objectif te pour nga xam sa objectif boo nekkee ci place da ngay xool lu la place ba di jëriñ waaw bu lay jëriñ toog fa bu la jëriñu demal sa yoon jeex waaye fii ngay gis nit rek nekk nii du xam sax du la mën sax ni lii may jëriñ du la ni lumière du la ni xam-xam du la ni xaqiqa du la ni li te facilité nag baaxul fa inna maa l'usri yusran inna maa l'usri yusran waaye facilité baaxul nee ñu mag ñi nee ñu bu la nee yoon bi ay digg ci nekk waaye ma ngay génn ca teen ba yoon bii moom amul benn digg waaye moom it ca teen ba lay génne nee nañu jaaral fa digg ya nekk waaw ñu ni lu tax ñu ni yoon ba amul benn digg boo ca jaaree tuuti mu sànk la waaw yoon ba digg ya nekk boo diggee digg ya mu metti waaye boo doxee tuuti nga gis neexit bi mooy boo nekkee ci yoonu yàlla faw lu naqadi dal la loolu mënul nekk wax naa ni benn yoon yonent bi amu ko du aadama du noox du kenn waaw gis nga yoonu yàlla boo ci nekkee fow mu am lu naqadi waaw soit yàlla dana la nattoo nga ñàkk wala yàlla nattoo la nit ñi xeeb la duñ la yëgal dara wala yàlla nattoo la ñu di la xeex ba bëccëg waaye boo ca boo ca boo ca amee volonté ëllëg dana ñëw yàlla fàtte loolu loolu yëpp ndax ci dëgg nga nekk waaw mais volonté nag moo la fa yóbbu waaw boo ragalee wala wala wala nga gaaw a rek daa daw dem sa yoon waaw te nag boo yooxoo yoon yàlla nekku ci boo ragalee yoon yàlla nekku ci xanaa kay la muy wan rek mooy nga waroon roy saxaaba yi ndax saxaaba yi ne dal leen embargo nañ leen moo tax ma ni missionnaire dañ koy xàmme waaw ah. yeneen ti yàlla nox wax naa leen ko ci gàmmu yu dul jeex ma ni leen li ko dal bu daloon nit fii ci réew mi <laughs> kon kon dañuy def cinéma sax di la di la jouer di ree waaw ah. neuf cent cinquante ans alfa sanatin ila hamsin neuf nga woote ko guddi te moom dafa daan woote guddi woote bëccëg xam nga am na ñoo xam bu nu waaraatee guddi bëccëg dañuy nelaw ndox dafa daan waaraate guddi waaraate bëccëg ñu dem dem dem lu ne xew danoo mujjoon jël caravage di ko dóor di ko dóor ba mu xam am na bis dañu ko dóor ba mu xam ci naaj yàlla yebal benn picc picc bi jógee asamaan ñëw taxaw di ko ëpp di ko ëpp ba mu jóg xam nga lu ca peuple ba teg ak mën njabar xoola picc bi di ko ëpp rek taxul nu ba mu demee ba ñu xam ni ñàkk nañu pexe taw maa ngay ñëw nangam nangam quatre-vingts personnes ñoo dugg ca gaal ga quatre-vingts personnes ñoo dugg ca gaal ga gaal ga ba mu demee ba Syrie yàlla indi pest comme la mu indi woon muy coronavirus lu mel noonu lu ko raw mu indi peste peste ba décimer leen ba mu des sept xanaa du yonent yonent la di xool xoola tragédie boobu quatre-vingts personnes ci biir gaal ñoo xam ne ñëpp taw mee tax ñu dugg ci de waaw bu ñu demee ba Syrie ña wàccoon ñoom la peste ba rey ñu déggaloon ndox toog ca gaal ga ñoom ñoo sauvé kooku bu daloon nit fii xam nga lu ñuy wax dañuy reetaan jàpp seen biir ñu xoola waaraatee na mille ans xam nga ñu ko gëm ngeen déedéet ñu ni juróom-ñaar quatre sax yàlla jéppi na leen rey leen loolu lu ne pour wax te yonent la xoola lool waaw pour wax la ni interprétation ci ñàkk ko dégg kooku danger la waaw parce que boobu yàlla soxlawul peuple ba yëpp xam nga yàlla ñu mu soxla woon ñi ko noox présenté rek la soxla woon te ñu noox amoon ambition wu présenté leen yàlla barewuñu moo tax ñi mu rek la yàlla soxla woon nit ñi nga may présenté ëllëg soo ma leen présenté ma décoré la seen kanam jeex na ñi ci des sama yoon nekku ci yàlla indi taw bu alag leen alag leen ba boole ci doomam ba boole ci doomi nox kan aan ibnu boole ci doomam doomam weddi bàyyam moo tax boo toppee deret ju doomu yenent yàlla nox yàlla di tawal ba labal ko moom nox walbatiku ñaan yàlla ni yàlla na nga ko yërëm ci man la bokk yàlla ni ko bokkul ci yow ba mu jéggalu yàlla ni ko juum naa kat li ma naan ci li ma naan ci man ci ci ci ci man la bokk juum naa nag ma ci jéggal doomu yonent laa wax di te nox nee na ko ñëwal ci gaal gi mu ni ko gis nga pap euh, xam nga sa détracteurs yi boobu ba léegi ñu ngi wax ma naan noo sam pap déedéet na ngeen ko rus mais ndekk dëgg la yow pap da nga doomam moo ko wax loolu ni ko papa ndeke yow li sa détracteurs yi doon wax dëgg la da naax ni ko lu tax mu ni ko di defar gaal ci désert boo xam ni yow nuy wax nga naan taw taw buy yëkkati gaal waaw bi ko nox waxee waxee mu dëgër bopp nox ni ko taw mi day wane mujj mu ni ko xam nga léegi papa pour sa xel daal gis nga montagne bële ca laay yéeg ba mu sewe te doo ni ma nag taw mi dina ko wan <laughs> waaye seetal yàlla li mu denk suuf ci ndox li mu dénk asamaan ci ndox benn baat la neen ni suuf génneel asamaan wàcceel moo taxoon moo taxoon mu nekk mbënn suuf saa doon ball ndox asamaan si di wàcc bu leen di labal di leen labal ba suul montagne ba ba labal doom te kooku fii ci aada am na ñu mënul gëm loolu dañ naan doomu yonent doomu yonent ci kaw nga gëm mission bi de boo gëmul mission bi bokkoo ci waaw parce que yàlla seetul loolu maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum la wax walakinna rasulallah il faut nit ki bàyyi ci xel waaw gis nga titre bu sa bàyyi mën a yore soo gëmul réalité bi sa bàyyi gëmoon ci lumière titre boobu boo ko revendiqué it yoroo ko waaw parce que mbir mi du rek euh, wàllu deret mbir mi lan la wàllu mission la te mission nag yàlla moo koy décerner nit booy séddale lumière yàllaay tax nga mën a séddale lumière booy protéger lumière yàllaay tax nga mën a protéger lumière lu ci nekk dafa am réalité bu mu àndal te mooy xaqiqatu muhammadin waaw kon yàlla na yàlla sàmm leen waaw yàlla na yàlla taxawu leen yal na yàlla dëgëral seen taxawaay waaw waxoon rek ni bu ñu ñëwee sànni ay kàddu waaye mission bi moom mot na waaw mot na ci fànn yëpp waaw ndax bu dul woon man it jeunesse bi dox nañ ko fii ba ñu agsee lu ñu soxla woon mooy jaww ji riir ci turu yàlla jaww ji riir na ci turu yàlla te benn turu yàlla bu nekk bu bëtt jaww ji ci allahu dooru laahi laa ilaha kenn xamul yiw bi muy indi ci ki ko tudd waaw kenn xamul yiw bi muy indi ci ki ko tudd te loolu defe naa jeunesse bi def nañ ko waaw kon nun mënunu rek lu dul sant leen waaye massawu leen itam waaw ndax ñi taxaw bari nañ lool ñu nekk ci biti bari nañ lool waaye ñëpp lii rek lañ doon wut muy yiw waaw ñëpp dañ ma doon it seen engagement ci mission bi waaw loolu rek lañ ma doon wan seen engagement ci mission bi te seen engagement doy na ma ndax doy na Mawlana Cheikh Ahmad Tijani waaw doy na ma sëkk ndax doy na Cheikh Tijani Chérif ñun moom ñi ni àndal ñëpp xam na nañu xam na nañu euh, ni dañu xam li xew moo tax xam nga boo xamee li xew da ngay noppal waaw moo tax doonu dégg ci ay débat doon dégg ci tàppale doon dégg ci dara xam nga loo ñuy dégg tournée nationale am na jaww ja moom li leer naññ mooy dana bëtt ci allahu nuur laa ilaaha illallah kooku moom kenn mënul tere bu te loolu jeunesse bi moom la ñuy def mag ñi ñu àndali noonu la ñuy def waaw kon loolu doy na sant yàlla waaw kon loolu doy na sant yàlla yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla taxaw leen waaw yal na yàlla saxal ñu ci dëkk waaw ndax yéen ñii naxu leen ma ndax mënu leen ma nax man mii naxuma leen ndax mënuma leen nax ku ci ne sa xel ngay demee ku ci ne sa xel ngay demee sa xol ak sa rox am sa yaqin waaw fii kenn mënu fi nax kenn nax nit nooy naxi nit koo nax sax daf ko neex koo war dellu delloo 1000 francs boo ko joxee 700 mu ni la des na 300 kon kon mënoo ko nax moo tax ñu ni diw toog na mais dañ koy nax ma ni déedéet del war ko jox 1000 francs nga jox ko 700 xool léegi mu ni des na 300 kenn mënul nax ni kenn ku ne xam na njëriñam waaw te loolu mooy réalité bi fi ne waaw loolu nag ngëneel la gunu yàlla defal kon nu sant ci yàlla dafay doon farati ci ñun waaw yàlla na yàlla nangul ñu cant bi yëpp waaw nangul leen ko yéen itam ci barke yonent bi barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif waaw ñu di leen remercier waat ci turu alxalifa cheikh Albouri mii tabaarakallaahu ak taxawaayam ak fédération daayira Dakar yi yëpp li nga xam ni jot nañ ko def fii ci Tiwaawan Pël organisation bu am solo bi nga xam ni tabaarakallaahu taxawee nañ ko ci fànn yëpp nag waaw ñu ñaanal leen yàlla mu gën leen barkeel ñaanal leen yàlla mu gën leen taxaw ñaanal leen yàlla mu gën leen yiir waaw waaw waaye yàlla itam mu gën leen sàmm waaw kenn ku ca nekk it mu xam ni la muy tawat la muy ñaan luñ ca mën ña ngi ko cay ñaan luñ ci mën ña ko cay ñaan waaw ñun ñun ci seeni soxla de waaw noppaluwuñu ci seen soxla noppaluwuñu seen yitte waaw xëy na rek da ngeen yëgul li ñuy daj mais bu ngeen xamoon li ñuy daj di ngeen xam ne ñun amuñu noflaay waaw ñun noflaay amuñu ñun noflaay amuñu ko te gëj nañ ko am ba ñu pare intronisation ba ba léegi amuñu noflaay waaw suñu génn sax bareetu te te te tooguñu di ñaanal suñu bopp lu ñuy ñaanal suñu bopp man sax loolu duma ci fekk balaa sa ma dem ñaan ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Si waaw ci fekk balaa ma balaa ca loolu ma dem ñaan ko ko moom mi yore magasin yi kay nga gis ki yor magasin yi nga toog naan magasin ba yàlla naa ci am benn <laughs> eh, potu meew wala nangam jaru ko wax ko tijjil ma rek jox mu tijji jox la jeex moo tax duñ ci sonn ci yitte yi nga xam ni Cheikh dafa ni du ko joxe te kenn ñaanu ko ci yooyu la ñuy sonn te yooyu dafa am. yooyu dafa am xaqiiqa da kay jàngale dañuy wax ci xaqiiqa ni ñetti ñaan ñoo am ñaan boo xam ni boo ko ñaanee yàlla dana la ko may boo ko ñaanul yàlla dana la ko may ak ñaan boo xam ni yàlla décidé na la ko may mais balaa mu koy may nga ñaan ko ko ak ñaan boo xam ni yàlla dafa ni boo ma ko ñaanee du ma la ko may boo ma ko ñaanul du la ko may boobu nag mag ñu neen nga noppal sa bopp itali waaw loolu la ñuy wax ndax nee na ñu mën a convaincre yàlla nag ba mu may la ko bariwuñu waaw bariwuñu ndeysaan waaw bariwuñu te loolu dafay am ndeysaan dañ koy gis ca ca jamono mag ña la woon waaw ca jamono mag ña la daan naa ko nettali ci Sidi Rayaahi la ma waxoon Cheikh Tijani Chérif ni ko dama bëggoon nga def ma xutbul axtaam waaw ni ko dama bëggoon nga def ma xutbul axtaam Sidi Rayaahi ñaan na ko Mawlaa Cheikh Ahmada Tijani ci xalwaam gis ko ni ko dama bëggoon nga def ma xutbul axtaam waaw Cheikh ni ko mënuma ko yonent bi moo leen di désigné mu ni ko li ma yëg mooy amul loo mënul waaw ndax kale yëpp yonent bi jox na ko cheikh ni ko waaye su ma la ko defee damay tooñ mag ñi waaw te mag ñi bu ñuy xëccoo ca adduratul bayda kooku démb la waaw kenn du changé na mu doxal pour wax la ni ñaan boobu mooy ñaan boo xam ni dañu dañu ni boo ko ñaanee du tax ñu jox la ko boo ko ñaanul du tax ñu jox la fa ko delloo waaye mën na lu ko raw sax cheikh lu mu mënul amul ñun xam nañ ko ci yàqin waaw cheikh Tijani lu mu mënul amul waaw mën na sax lu raw loolu xanaa kay dafa dafa dafa def rek ni yàlla di def ci principe am moom noonu la def ndax principe bu yàlla moo tax yàlla ni danga may jaamu ma dugal la aljana ngay def lu la neex ma yóbbu la safara mais su neexoon yàlla nga jaamu ko mu bañ la dugal aljana su ko neexoon nga def lu la neex it mu jël la dugal la aljana mais ci principe am rek lay àtte ah, ci principe am lay àtte su ko defee yooyu yëpp boo ko gisee rek da ngay xam ni tabaarakallaahu waaw ñun yàlla dimbali nañu ba yàlla wan nañu dëgg te xàmme nañu ko te loolu nag mooy li am solo te mooy ngànnaayu nit ci aaxiru zaman mooy yàlla wan la dëgg nga xàmme ko kon ñu ngi leen di sant di leen remercier di leen joxaat rendez-vous rek samedi le 18 juin ca Rosso Sénégal ca Zawiya Lumière boobu nga xam ni la fa ne ci baatin kenn xamul na mu toll waaw man man bariwul lu may yéemu ci Zawiya waaye Zawiya boobu ñëw wax naa leen ko ma ni leen dama ci yéemu ndax la ma ci gis am na benn bis benn wasifa laa fa gis ñu ngay wasifa benn shérif fa nga toog wasifa boo xam ni kat la may jaaxal mooy ñëpp jàppante lox bu ñuy jàng jaw jawharatul kamal keroog dañuy jàng jaw jawharatul kamal ba ma gis ay hóorul ay nin yu jóge aljana dugg ci ci biir zawiya bi ànd ci wasifa bi loolu ca Rosso Sénégal rek laa mos a gént loolu ca zawiya bi mosuma ko gént feneen xaw ma nag lu nu fa def ñoom xëy na ngeen laaj leen ko ñoom xam nañu waaw waaye daal xam nañ ni moom le 18 juin incha foofu la ñu jëm waaw ànd ceeg fédération waalo yëpp waaw moom gëjoon nañ fa 2018 waaw gëjoon nañ fa 2018 foog nu dellu fa tabaarakallaahu waaw moom it jaww ja riirati ci allahu nurullahi laa ilaha illallah waaw waaw ndax seen xale yi itam ñu am détermination la ñu tabaarakallaahu waaw nañ fa depuis 2018 waaw comme fii rek wax naa ko ñoom Khalifa Albouri wax naa ko keroog ci émission bi ma ne leen fii 2007 laa fi gëjoon 2007 xam naa gëju zahir nag ngeen koy tuddi waaw ndax dend ak nit koo xam ne bis bu ne mu gis la ci biir këram guddi te nga ni da nga fi gëj 2007 kooku daf koy jaaxal <laughs> moo tax ma ni gëju zahir la du bu baatin nag du bu baatin ndax man ku ma am ak ku ma amul sax laa wax foo nekk naa la fa fekk loolu ñëpp xam na loolu loolu moom kenn mënatu ko weddi ci room waaw loolu bis bu ne nit dajeeg nit ni ko sa sëriñ laa gis waaw lu tax gisul sëriñam mu gis ma ma bis bu ne nit gis fii nit mun la yow sa sëriñ laa gis bii loolu moom mën naa ko ak samay njaboot waaw loolu moom moo tax bu ma nee gëj rek Zahir ma tax di wax Zahir nag gëj naa fi 2007 l'an 2007 laa fi gëj ma ànd ak sama mag maître Malick moom laa fi àndal ñu ñëw mu am terrain bu muy seet fii ni tiwa ma ne ko fii fan la sax mu ni ma tiwaawoon pël ma ne ko waaw kon demal seeti terrain yooyu man ma wér du tuuti ma toog di wér du mu dellu si. ma ni ko fii de ku ñu tafoon sa bët ni la biir dakaar la doo ko gëm mu ni ma lu tax ma ni ko garabu kokk yi boobu noonu ay garabu kokk rek lañu fi gis ak ay garabu salaan yi salaan yi sax ci suuf si l'an 2007 moom laa fi gëjoon ci Zahir ba tey jii waaw kon kay ñun jaabante jaabante tàlluñu ko bu doon loolu bis bu ne ñu ngi fi waaw bis bu ne ñu ngi fi waaw ba ngeen di def daal seen xadaratul jumaa bi ngeen fi defoon boobu maa ngi taxaw waa Medina Cheikh ñenn ñi fii ñoom daaw dama doon ko sedde mën leen tay de wéccu naa lu tax dew ma Tiwaawan Pël maa leen ko wax ma leen su ma ko yëgoon oto laay jël ba foofu waaw boobu nag xaala ma yëkkati la waaw boobu xaala ma yëkkati <laughs> dama ni leen bu ma ko yëgoon rek oto laay jël ba foofu boobu xaala ma yëkkati woon ñoom xam na nañu bu baax lu tax ba bëggoon ñëw ci bis boobu waaw man leen bu ma ko yëgoon de tey Tiwaawan Pël dana neex xamee ma ko woon nii nag moo tax ma leen def leen rek waaw xamoon yëpp dana ci xew mais bu ma xamoon yii ci xew kon oto laay jël ba foofu waaw boobu maa ngi taxaw waa Medina Cheikh am na ñu ma doon tooñ sax naan ma ñi ngoon a jot rek weesuwul di ma ni ah eh, kay weesul voilà nuy àgg ñuy commencé seen xadara wallaay ndeysaan waaw moo tax yàlla na yàlla sàmm leen sàmmal leen seen gërëb bi waaw xam nga 2007 ba léegi kenn waxul woon ni lumière bi dana fi nekk tey ba ñu daje fi waaye gis nga rek li ma waxoon ci sama tournée bu Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijani fu mu fas yéene def tomb tombam dana la ommat ba nga teg fa sa tànk waaw te noonu lay doxe noonu lay doxe noonu lay doxe ba 2075 waaw kon yàlla na yàlla mottali yéene yëpp ci zahir ci baatin yàlla na yàlla faj haajo yëpp ñi nga xam ni dañu indaale tawat yàlla na yàlla may leen wér-gi-yaram ñi nga xam ni dañu ñàkk yàlla na yàlla may leen wërsëg yàlla na yàlla may leen gudd fan yàlla na yàlla may leen fekke yàlla na yàlla may leen temps waaye yàlla na yàlla dëggal seen volonté te nangul leen ko ñu jàng fatiha jàng salaatul fatiha ñu def ci haajo yëpp incha allah aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin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 leeru yonen ak sa leer gi am na jeexital si ñun saa bu nu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun. sang bi li nga saxal ci bërëbu Medina Cheikh. Euh, asalaamaaleykum euh, euh, Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh. Mhm. ñu gis ni 2007 nga fi gëj a teg sa tànk comme ni nga ko mhm. waxee. ñu bëggoon xam tey ginnaaw 15 yi nga toog ñëwoo fi lan nga yëg bi nga fi ñëwaatee tey. et pourquoi le choix de Tivaouane waaw macha allah soxna Fatima maa ngi lay ziare bu baax di ziare aussi waa Medina Cheikh TV yëpp di wax rek comme ni ma ko waxee woon ci waxtaan bi 2007 laa fi géejoon yàlla dogal ma ñëwaat fi 2022. li ma fi yëg mooy euh, li nga xam ni bëggoon naa ko fi ndax ba mu fi ñëwee 2007 sama mag laa fi àndaloon moom mu am terrain yu mu doon seet man ma profité ci moment boobu ma toogoon man kese doon def sama zikru salaatul fatih. tey ñëw naa fi yàlla dogal na ànd ak naa fi mbooloo mu takku defaat sama zikr salaatul fatiha ànd ak ñoom yëkkati baat bi nga xam ni baat buy kennal yàlla la muy allahu nurullahi la ilaha illallah kon daal su may am yëg-yëg mooy damay wax ni béréb bi daal la ma fi bëggoon am naa ko atteindre naa fi sama objectif ñëw naa fi man kese tudd fi yàlla dellu si naa fi ànd feek mbooloo tudd fi yàlla kon atteindre naa fi sama objectif macha allah. Ah, lan moo tax ngeen waaw Tivaouane Peulh moom dañu ko yàggoon di waajal depuis lors ñu waajoon waajoon di ko waajal ca defe naa ni sax ay deux mille vingt et deux mille vingt yàlla dogal boobu période boobu ak Covid bi mënagul woon nekk ci rassemblement yi nga xam ne dañu ko arrêté woon ñu ni nag kon dañu bàyyi ba léegi ñu tijjiwaat rassemblement yëpp su ko defee ñu profité ñëw fi pour àggale sunu yéene ci béréb bi. àggale suñu yéene ci béréb bi nag yàlla dogal mu daje ak la ñoo tuddee le début de la mission kon nag loolu damay gis ni rek dafa nekk loo xam ni daal lu am solo la waaye loo xam ni du ñun ñoo ko décrété mais Maolana Cheikh Ahmadou Tijani Chérif moo ko décrété moo tax mu mën a tombé nii macha allah. ñi ngi remercier waa Medina Cheikh TV ak seen équipe yëpp macha allah jërëjëf a ah. saa bu nu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul aqtabul kabir sa gi am na jeexital ci ñun sang bi tasuloo yaakaar gaa yi ñëwoon wut am na jeexital ci ñun saa nu gisee Seydi Mohamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun sang bi tasuloo yaakaar gaayu ñëwoon wut si la wut si la bi nu wan nga leen leeru cheikh leeru cheikh gi na jeexital ci ñun gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabiir sa leer gi am na jeexital ci ñun yow sang bi yow lañu yaakaar almahdi ngand mi yow lañu doon xaar yaa aliyal aqtaabi yaa di borom leer yi nandaleer min al wal awaar saa bu nu gisee saydi Mohamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi jërëjëf xutbul axtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun yow sang bi yow lanu yaakaar almahdi ngand mi yow lañu doon yaa aliyal aqtaabi yaa di borom leer yi di si nandaleer min al buxuuri wal awaar saa bu nu gisee saydi muhammad al cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabiir sa leer gi am na jeexital ci ñun ya mawlaaya sayyidi muhammadu el cheikh cheikh Babacar Gueye wayoon na ko sangi bi yaa man ci ku ñaawi jaar jaar jox nala loxo mooy set nga si bàkkaar ngay dem mu jox la yóbbalu istixfaar digal la toogaayu mbalaanu wasifa mu di la waar tubaab nit ku ñuul ba naar yaa leen na réyeem fun ni doo dem nañ la fa xaar sang bi agsi lal mbalaan bàkk cheikh mi ko saar lii moo waral fu mu àddoo xol yi fees yi leer sang bi doo kilifa gu nuy gaare doo ku gaar sa pas-pas sa cofeel ci mawlaaya cheikh dëggal na ni yaay jàmbaar mbindéef la dara cheikh ay aar sant nanu yàlla bi nu la amee kon taalibe yi nanu dikkër tey déglu di sant tey teewlu dundu leen